juróom-ñeent fukk ak benn laaji nit ak tonti yàlla asalaamaaleykum yéen mbokk yi ñu déglu nu ngi leen di nuyu ci tur yàlla borom jàmm ji bëgg ñëpp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub mbokki déglukat yi gannaaw ba nu leen nuyoo ba noppi nag dañu bëggoon a wéy ci li nu tàmbali woon ci émission bi weesu maanaam tontu laaj yi nu jote ci yéen ñi ñu bind nu ngi sant ñépp ñi ñu bind ay bataaxal yu ëmb ay laaj bala nuy tàmbali am na nanu lenn lu nu bëgg a leeral bu nuy tontu ci seeni laaj ñemewuñu sukkandiku ci sunu xam-xamu bopp wala leneen ci kàddug yàlla dong lanuy sukkandiku nun xamunu dara lu dul lu nu yàlla xamal ci mbind mu sell mi li yonent yàlla yaxya waxoon ci linjiil mooy dëgg kenn mënula am dara lu ko yàlla joxul kon na nanu dellusi léegi ci laaj yi di leen fàttali rek ne am nañu fi suñu mbokk mi fi ci émission bi weesu moonu fas yéene jàngal laaj yi fi nekk tey kon ñu bàyyi ka kàddu gi baax na am nañu fi benn bataaxal bu wax ne wax ngeen ci benn émission ne lu bon mënula jóge ci yàlla weddi loolu ndaxte dama gëm ne yàlla lu bon la jëkk sax soog ci teg lu baax jërëjëf wolof yi dañuy wax ne kenn du tontu ab laaj ak beneen laaj waaye xëy na man mën naa la tontu euh, ak benn laaj mooy ndax yàlla mën na dékku lu bon yonent yàlla abakuk bind na ne yow borom bi yaay aji sax ji say bët dañoo sell ba mënuloo xool lu bon te mënuloo dékku bàkkaar kon bu yàlla mënula dékku lu bon warunoo gëm ne yàlla mën na bindu lu bon mënuñu ci sore léegi waaye kàddug yàlla dafa nuy won ne iblis ak xolu nit mooy mbëndum lépp lu bon te yàlla ak kàddoom mooy mbëndum lépp lu baax moom la mbind mi wax bi mu naan ndax ndox mu lewet ak ndox mu wex dinañu ballandoo ci genn mbënd mukk yàlla aji leer la te genn lëndëm nekkul ci moom kon bu la fiir galanee bul ne yàlla ko dogal ndax te yàlla jegewul ak mbon fenn te du fiir kenn waaye ku sa bakkan nax ba mën la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 laaj bi ci topp mooy su fekkee ne yàlla ku sell la te fees ak yërmande ni ngeen ko waxe lu tax kon muy seetaan xeex yeeg xare yi reyante yeeg lu ñaaw li ci àddina ndax dafa mënula def dara ngir wàllu nit ñi nekk ci musiba waaw yàlla boroom yërmande la te li mu waroon a def ngir wàllu si nit ñi nekk ci musiba def na ko ba noppi yónni na ramukat bu jub bi di yéesu kirist ngir jubale nit ñi ak boppam kon bala nit ñi di mën a juboo ci seen biir li ñu war a jëkk a def mooy gëm musalkat bi yàlla yónni jébbalu ci moom ñun ñépp bu sunu digganteek yàlla baaxee diggante nit ak nit soogay mën a mel na ca wer bu ko defee jàmm ne ñooy kon xanaa gis ngeen ne lépp ngi aju ci nun faaw nu jël saafara si nu yàlla indil ci lu jëm ci ñaawteef yi fees àddina te yàq ko kàddu yàlla dafay xamle ni borom bi yeesu kirist wara dellusee ci tukkiteel àddina ngir àtte ñépp ñi gëmul woon dëgg gi te doon bànneexu ci bàkkaar léegi bu borom bi yéesu daaneele nooni yàlla yépp nag dina yeesal duniya bépp te noonu li ñu bind ci mbind mi dina mat mooy li mu wax ne musiba dootul am wala dee wala naqar wala jooy wala metit ndaxte yëf yu jëkk ya wéy nañu ñetteelu laaj bi nu am tey mooy bi man de dama am lu ma jaaxal dama foog ne man su ma defee bàkkaar lu bàkkaar ba mën a jur ci sama kaw lay dal waaye warula topp sama doom ndaxte defu ko waaye yéen dangeen wax ne sunu maam aadama bàkkaar ba mu defoon ca toolu aljana moo law ci doom aadama yépp ba tax yàlla war leena mbugal loolu nan la mën a nekke jërëjëf xam nga wala fi dañuy wax ne musiba du yem ci bopp borom te kéwal du tëb doom ja bët du noonu ñun ñépp ànd nañu ci ne soo juree doom yar ko mu gimmee ci say loxo màgge ci sa kër lu mu bon bon dina jël jikko ci yow mii waajuram sa waxin sa doxin sa xalaatin ak sa jëfin ñun ñépp nag aadama ak awa ñoonu jaboote ci ñoom ñi ñàkkoon a dégg ndigalu yàlla lañu soqi noonu kan ci ñun moo mën a wax ne musula mooy benn yoon ndigali yàlla amul du kenn sax kon boog jikkoy bañ ndigalu yàlla jooju nekk ci suñu xol fan lanu ko donne ci aadama ndaxte baakaar bi nekkoon ci moom moo law ba ci nun nu bañ ko wala nu bëgg ko loolu la moom la kàddu gi yàlla di wax tembe bi mu ne baakaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp baakaar waaye nag yaakaar jeexul ndaxte kàddug yàlla wax na it ne jàddu kenn nit ka rekk moo waral yàlla daan ñépp noonu itam jëf ju jubu keneen nit ka rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub ci kanamu yàlla te am dund gu bees léegi mën nañu jàll ci beneen laaj su la neexee waaw <clears throat> am na fi kenn ku laaj ne dimbalikat bi yeesu yégle woon ne dina ñëw gannaawam te ñu koy woowe parakletos ci làkkum grek ndax ñëw na su fekkee ne ñëw na mooy kan ak kañ la ñëw ni nu ko jànge woon ci linjiil laata borom bi yéesu di dellu asamaan déggoon nanu ni mu dige woon ay taalibeem ne dina ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelum yàlla mi yor dëgg gi àddina du ko mën a nangu ndaxte àddina gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mu ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen kon bu leen sore yerusalem waaye ngeen xaar li baay bi dige woon te ma waxoon leen ko ndaxte yaxya daan na soob nit ñi ci ndox waaye yéen des na leen soob ci xel mu sell mi fii ak ay fan yu néew li yeesu digoon ay taalibeem ci mbirum ñëwu dimbalekat boobu lu am maanaa lool la ci nun nu dégg ko ndaxte am na ci sunu jamonoy tey jii ñuy bëgg gëmloo nit ñi ne yéesu dafa doon yëgle dikku beneen yonent waaye dimbalekat bi mu dige woon mënula nekk nit ndaxte yéesu wax na bu leer ne xel kese la te kenn mënu koo gis te itam diina dëkk ci taalibey kirist yi ba abadan kan mooy xel mu sell moomu nag xel mu sell mii mooy xelu yàlla mooy xel mi doon xiir yonent yi ñuy bind te yëgle kàddug yàlla ci jamono yu jëkk ya xel mu sel mi mooy xelum aji kawe ji wàccoon ci janq bu tudd maryaama ngir mu ëmb te jur doom ju sel ji mooy xel mi nekkoon ci almasi bi yeesu te it mooy xel mi yàlla sol ci xolu ñépp ñi gëm almasi bi ngir laat leen selal leen dooleel leen tàmpe leen ñi ay ñoñam te may leen cër ci jataayam bu sell ba faaw loolu la mbind mi wax ne yéen bi ngeen déggee kàddu dëgg gi di xibaar bu baax bi leen tegtal yoonu mucc te ngeen gëm ko yàlla na leen ñi ñoñom ak xel mu sell mi mu dige woon te xel mi mooy dawal gi nu yàlla jox ci cër bi mu dencal ba keroog muy goreel ñi mu jotal boppam te ñépp jollil ndamam jërëjëf ci tontu bu leer boobu beneen laaj ngi ni lu tax ñu seddalee biibal bi ñaari xaaj yi di ancien testament ak nouveau testament. jërëjëf ci tënk euh, li ngeen war a xam mooy lii lépp li yonent yàlla yi bind ci ancien testament maanaam ci kóllëre gu jëkk gi bindoon nañu ko laata almasi bi juddu lu jiitu juddoom waaye lépp li nekk ci nouveau testament di kóllëre gu bees gi bindoon nañu ko gannaaw juddub almasi bi naka noonu xabaaru yonent yàlla yi bind kóllëre gu jëkk gi moo doon yàlla dina yónni almasi bi waaye xabaaru kóllëre gu bees gi mooy yàlla yónni na almasi bi ni mu ko diggee woon jaarale ko ci ay yonentam kon bu nu jaaxle ci li biibal bi am ñaari xaaj waaye nanu sant yàlla ak xol bu sedd guy ci li mbind mu sell mi ëmb kóllëre gu jëkk gi ak kóllëre gu bees gi ndaxte ñaari xaaj yooyu mën nanu ci gis ne li yàlla dige woon bu yàgg def na ko yàlla wàcceel nanu musalkat bi mu dige woon sunuy maam ci tawret saboor ak téere yonent yi ni gif di saxe ba nekk guy noonu la kóllëre gu jëkk gi mate ci kóllëre gu bees gi am na fii ku laaj ne dañuy wax ne nit mënula xam ndax àjjana la jëm wala safara yàlla rekk a ko xam te yéen ngeen di wax ne xam ngeen ne su ngeen deewee tey ji sax yéen a nga jëm àjjana fan ngeen sukkandiku ngir wax loolu waaw laaj boobu laaj bu ñuy fara jànkoonteel la bis bu nekk may leen ma rekk ma tontu laaj boobu ak beneen laaj li nu bëgg a laaj mooy lii ndax yàlla mën na tebbi waxam walla kuy sàmm kóllëre la li nga war a fàttaliku mooy lii yàlla moom ci boppam mooy ki sol ci xolu yonent yi ñu bind ne yonent yàlla yépp seedeel nañu ko ne ku gëm boroom bi yéesu Kirist yàlla dina la baal say bàkkaar ci tuuram maa ngi leen di bind yëf yii yéen ñi gëm ci turu doomu yàlla ji ngir ngeen xam ne am ngeen dund guddul jeex gannaaw nag yàlla ci boppam mooy ki wax ne mën ngeen xam ne am ngeen dund gudul jeex kon nu nooy kan bay wax ne kenn mënula xam fu muy nekk diirub laaxira maanaam ku dee xamul fu mu jëm laaj bu mujj bi ñu war jël tey mooy bi su fekkee ne dégg naa bu baax li ngeen jàngale ci mbirum yéesu ak mucc gi kon mën naa gëm yéesu kirist ni sama musalkat te gannaaw loolu may dundee nu ma neexee di def lu bon te bu ma deewee dem àjjana ndax loolu la biibal bi di jàngale daanaka sunu jot tey jeex na waaye li nu leen mën a xamal ci lu gàtt léegi mooy lii ñu bañ ko walla ñu bëgg ko xebaaru deewuk borom bi kirist yeesu ca bant ba ak ndekkiteem ca bàmmeel ba mooy pexe mu jub mi yàlla tëral ngir musal bàkkaarkat yi ci mbugaluk bàkkaar ak dooley bàkkaar te soo nangoo xebaar bu baax boobu ci sa xol te gëm ko ngëm gu wér kàddug yàlla dafay yëgle ne ci saa si yàlla dina def ñaari yëf ci yow ci bu jëkk yàlla dina la baal say bàkkaar yépp ci turu yéesu kirist ni mu ko digee woon te ci ñaareel bi yàlla dina yeesalaat sa xol ci dooley xel mu sell mi te noonu dinga tàmbali sopp njub te bañ lu bon ndaxte yàlla sol na la jikkoom ju sell moom la mbind mi dige bi mu naan bu nit bokkee ci yéesu kirist mbindeef mu bees la li jëkk wéy na lu bees a fi teew ndaxte kirist joxe na bakkanam ngir nun ba jot nu ci lépp lu bon te baral nu boppam te xeet wu sell te ràññeeku ci jëf yu baax kon bu nit gëmee borom bi yéesu kirist dëgg-dëgg dootul mën a dunde ni mu ko neexe di wéy ci sax di def lu bon ndaxte yàlla sol na ko xelam mu sell mi te li xelu yàlla mi di meññ ci dundu taalibe yeesu yi mooy mbëggeel mbég jàmm muñ laabir mbaax kóllëre lewataay ak maandute sunu jot jeex na tey waaye bu soobee yàlla euh, dinanu fexe gën a gëstu ci laaj boobu ci émission bi ñëw nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su fekkee ne da ngeen bëgg yaatal seen xam-xam ci lenn ci li ngeen dégg tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub boîte postale 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel nu ngi leen di tàggu ak wax ji nekk ci sabuuru yonent yàlla daawuda jëfi yàlla dëngul fenn waxi aji sax ji moo sell na wurus mu xel pàkk la buy aar képp ku ko wóolu